ami fidèle internaute Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, ci seen bu mag bi nga xamante ni moo di suñu Sunugal 24 waxtu wu nekk di dox euh, ngir sàkku ay leeraange ci lépp xibaar information yoo xamante ni jib na ngeen sàkku ci leeraange Seydina Alioune euh, Ndiaye doon koo xamante ni euh, mooy porte parole le docteur Ahmed Khalifa Niass bi ngeen miin ràññee ko mu mel ni am nay kaddu wala boog itam xew-xew yu dox ci seen diggante loolee la ñu fas yéene déglu ay kàddum ngir mën nañu si ay leeral Seydina Alioune maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyuwante ak suñu Euh, jërëjëf di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi siibur euh, sunu gaal 24 euh, nga xam ne macha allah ci liggéey bu xereñ bi nga xam ne yéen a ngi koy def ñu leen di siibur ci àdduna bi yëpp di am mbégte kontaan lool ci li ngeen dégg ndax dafa bokk ci liy doxal société ngeen dégg dara ngeen jóg sol seen dàll ngir xool loolu nu mu demee kon bismillah voilà looloo tax sax li olof di wax euh, tunga ne du teew ñuy nataal coow dox sa digg ak Ahmed Khalifa Niass docteur. Euh, ñëwal ñu ci taw li dëgg-dëgg nan la demee. Euh, waa man la oustaz Seydina Aliou Ndiaye. di mm-hmm. porte parlo docteur Cheikh Ahmed Khalifa ñas mm-hmm. d' abord présenté wu ngir ñi xamul. maa ngi dëkk nag ci village bi ñuy wax Koutiéy nekk ca Saloum ci mm-hmm. commune bu Kër soose arrondissement bu Ndiédiène wala département Kaolack. suñuy maam nekkoon soldaar yi maam xalifa Niass. ku xam ku ci yàgg ko dégg ci eh, njabootu kër maam xalifa waaw yàgg koo dégg ndax maam xalifa dafa daan wax ne. Mhm. saa wu gestuwaan gis waa ku ci rek. macha allah xam na ne lépp dana normal parce que borom jom lañ borom dogu lañ waaye ñu yàlla dénk fit lañ. Mhm. Mhm. nga yor kàddum moom Ahmed Khalifa. waaw ma yor kàddoom loolu moom yaakaar naa ku dugg ci net bi dugg ci YouTube bi dugg ci lépp ba tout récemment vidéo yi mu a ci plateau yi di ko wax yépp Euh, fees na si euh, fu nekk toog na fa tagg ñu fa ci ay vidéo ay ojo ay yooyu daanaka mhm. toog di wax loolu sax day xaw a nekk leneen suñu amoon kàdd gu gën a fort mhm. euh, romboon nañ porte parole am ci moom parce que mu nekk mu xaddamam mu lijaasaal mu ngi nii ci kii bi aussi yor communication comme nii ngeen di def image am yëpp maa koy topp mhm. aussi ak relation di coordonner daayira yi di coordonner xadara bi waxtaan yi euh, yor aussi cellule oustaz yi yëpp macha allah ak événement yi am yëpp mhm. euh, maa daan coordonné lépp euh, macha allah. Mhm. kooku kon nekkul ko ndaw ci moom mais ñëwal ñu ci jafe-jafe bi dox seen diggante lan la. waaw jafe-jafe bi comme mu ngi ci mbiru yoon dana am luñ ci man a seppi. Mhm. première jafe-jafe bi ma am mooy ñëw na yónni ay doomam lu jiitu loolu nag yónni na ay taalibeem ay muxaddamam di laaj. benn oto boo xam ne dafa ma ko joxoon. kañ la kañ la kañ la yónni ñooñu. Euh, waaw yoon nii bokk na ci ay taalibeem yoo xam ne comme affaire kii la damay réserver rek. <laughs> kañ la date bi. Euh, yàggul ci parce que ci biir semaine bi la. Mhm. mais nag am na ñu ko jege ñoo xam ne ba mu leen ci commencé yónni war naa mat ay presque un mois. Mhm. Euh, mu ngi doon kii ci loolu. su ko defee nag comme dafa soxla léegi oto bi. ak ay détails yoo xam ne incha allah bu yeggee si gën koo leeral danañ ko leeral lu tax mu soxla ko. Mhm. ak ginnaaw bu mu ko soxloo fan la oto bi jëm loolu yëpp fan yi ci kanam dana feeñ. mais du ñàkk loo ci defal ni leeral parce que mhm. euh, ku dégg ne oto la la mayoon. Mhm. nga nekk porte problème bés jot mu bëgg koo nangu force suñuy laaj lan moo waral mu bëgg nangu oto bi. waa dafa romboon may sax parce que ku suivre docteur si Ahmed Khalifa Niass diir bi ma nekk ak moom. ci liggéeyam. tey àdduna bi rek jëlal sa micro rek nga introsé laaj mm-hmm. rolu oustaz Serigne Aliou Ndiaye ci xadara docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass dana wax liñ ci fësal ak liñ ci feeñal mm-hmm. te day wax ne ku liggéey lu kawe am lu kawe donte njëkkuma fa mu yëkkati loo xam ne daanaka dañu wax ne dangaa def lii mu defal la lii loola aussi mu joxoon mu ko war naa mat un an quelque mu nekk benn Infinity 4x4 mm-hmm. KX Euh, wax dëgg yàlla am mu ngi ci vidéo yi boo ñu paree dinañ la ko jox mu ngi ci TikTok bi Facebook bi yépp oto oustaz Seydina Aliou Ndiaye boo xam ne moom la ko docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass jox ah léegi li ma xamal nag ne coow li ci oto bi la daf ma plainte fi nga xam ne mooy commissaire commissariat bu jëppal moom docteur moom docteur mhm. foofu aussi bi may dem sax plainte bi dañ koo nëbb xaw ma lan la mais si lañ ma fësalee xamal ma ne ma dafa am benn oto bu la joxoon soxla ko waaw ma ne loolu bu fekkee ne loolu la jarul jarul jarul plainte léegi fi nga jaaroon wax nit ñi ne leen maa ko jox maa ko def nangam ñi publier ko nga di ko seytaan sax njaboot di ko seytaan mhm. nañ rocc ci publication yooyu rek. mais dama bëgg xam lan moo xew ci diggante bi ba tax mu bëgg nangu oto bi. waaw mais xam nga loolu moom booy suivre information moom. Mhm. joxe dara ba mu yàgg nangu ko loolu moom baaxam la. loolu moom yaakaar naa yaa ngi suivre information yi bu mais amul lu xew ci seen diggante. waaw lu xew dana feeñ dana feeñ te bu feeñee euh, kenn ku si nekk da nga dar si gémmiñ incha allah. mais cofal ñu ci comme <laughs> def nañ euh, déplacement. ak it internet yi xam ne toog nañ di xaar. waaw xam nga comme dafa am loo xam ne ñu ngi ci yoonu justice di ko enquête. Mhm. nañ bàyyi loola. waaye loola moom bu feeñee rek kenn ku si nekk danga nga dar sa gémmiñ ne lii foogu mu woon ne dana am dana xew. parce que dañ toll ci jamono joo xam ne boo jàngu nit ñi wëlbatee wax rek dangay am problème dafa am looy cof tuuti rek am loo réservé xaar. lii naa leen loolu lu yéeme la lii yoona ko moom waaw waaye li gën a am solo. Mhm. mooy li xew ba nit ñi ku ne tiit. Mhm. mooy acte bi nga xam ne moo am guddi bii mhm. ci euh, kër gi ma jox ci Fass Delorme nga xam ne moo këram ñoo taxaloo. donte kër gu guñ abandonné la nag ndax boo fa demee mbalit mi rek mën nga faa jëlee ay ay ay camions yi camions. Mhm. mais sonnoon nañ ci ba ku fa ñëw man faa nekk. li xew biig nag mooy dañ toog. ba mhm. ay boori minuit. Mhm. mu yónni doomam bu ñuy wax Baye Niass. Baye ñu ngi ko tuddee cheikh cheikhul islam. Mawlana Cheikh Islam doomu suñu yaay Xadisa la rahmatullahi alayha nga xam ne kenn du ko fàtte. mu yónni ko ak beneen doomam bu ñuy wax Bachirou Niass di doomi yaay faatu Diagne. ak beneen sëtam bu ñuy wax Omar Ndiaye nday ami Niass di taawu Ahmed Khalifa Niass moo ko jur ak keneen koo xam ne moo yor buntam di alaaji Aliou Niang Bada waaye doomam ji nga xam ne mooy Baye Niass bi mu ñëwee ci heure boobu fekk ñu ngi waaj tëdd mu ne sa mu fëgg sama soxna ñu ubbil ko ñu toog waaw maa ngi sangu ma génn mm-hmm. mu ne ma sama papa moo ñu yónni ma leen bisimilah. mu wax discours ba lu mu ëmb yëpp mooy sama papa nee na nga tebal tegal ko fii caabi këram ak caabi otoom ma ne ko dafa yomb nag même yow am na loo xam ne sa papa bu la ko waxoon da ngay xalaat wi jëm une nga ñëw ci koo xam ne du gan du xale ci kër gi nekk ci kër gi xam lu bari ci kër gi nga ñëw ne minuit na dégagé wu jénne mais kër boo ci jénnee nit sax xanaa dafa may ay normes yoo ko war a jénne xar sax xanaa boo ko doon jénnee dëgg-dëgg ci gédd bi bala nga koo jéene da nga ko utal buum ut foo ko teg mhm. ma ne ko loolu mantu ne mu ne ma non ñun suñ papa nag bu xasee wax dañuy appliqué ma mana ko loolu nañ ci dem bañ xaw fa coow tuuti mais ki nga xam ne ni tey mooy alaaji Aliou Niang di bada mhm. moo ne ko da ngay dem ci sa baay nga wax ak moom soo demee nga wax ak moom carrément mu bàyyi ba suba yow bàyyi ñes nga ñëw ànd ak oustaz Seydina Aliou Ndiaye ngeen dem ci kër gi toog waxtaan ak góor gi parce que kii ci kër gi la ne te am na loo xam ne bu jénnee du baax mu dem mhm. ba yàgg mu ñëwaat ne paa bi nee na yow da ngay jénn mais sama jabar day des ci kër gi xaw ma nag lu tax ñu bëgg sama jabar des ci kër gi teqale maa ak moom yow nga génn mais sa soxna moom mën na fa toog waaw xaw ma nag lu tax ñu bëgg loolu mhm. ak sama ñaari doom muy ñetti doom ki ma tuddee Sidi Lamine Niass ñu ngi nii ci saal bi toog mhm. ak ki ma tuddee Alhaji Ibrahima Niass ak ki ma tuddee Seyda Salma Niass parce que moom Ahmed Khalifa Niass dama ko tuddee doom tuddee rakkam Sidi Lamine doom tuddee rakkam Seyda Salma Niass doom parce que waxtu tudd bu jotee du ma su ma laajee ko bëgg tuddee ma ne ko man awma choix loo wax rek noonu la peut-être yërmande boobu ci njaboot gi moo tax mu bëgg soxna si des fa waa waa mais xam nga bu fekkee ne moment boobu yow ak ni kër gi bindooyee mhm. ak ki xam phase de l'orme foofu lambi joolaa bi nga xam ne genre mécanique la nga mm-hmm. bëgg a jël ni teqale ko ak ak ak ak ak jabaram bu doon ci teeyu bakkan mm-hmm. da nga daan tukki bàyyi ko fi eh, mais bu dee fitne bii nga xam ne moo xew te dana feeñ léegi mënoo ko faa bàyyi ma ne ko loolu moom mu ne yaa ah, ma ne ko loolu mu ne mu delluwaat mm-hmm. jël na nag responsabilité dem ñëwaatul mais ki mu àndaloon di rakkam bi ñuy wax Bachiru Ñas Bachir di doomu Ahmed Khalifa Ñas ak yaay Fatou Diagne mu taxaw ci saal bi ne da nga jénn ci nii wala ne la wala ñu nangam sa jaar fu ñaaw ci doomu kilif xam ne sa gémmiñ alxuraan rek ci war a jénne ak waxi Seydunaa Muhammad mhm. bañ xaw faa kërti kërti mu dem mais bu muy dem mu ne maa ngi dem mais su ma ñëwee dinaa nangam seen ngeen jénn ci biti ñun ñu toog ba ay côté deux heures presque. boobu xale yaa ngi fa. boobu xale yaa ngi fi xale yi kii six six mois la kii yaakaar naa six ans El Hadj ak sama sama sama salmaami ñu ngi doon commencé jàppanteeg nelaw. Mhm. dañ toog rek dégg bunt yi tëll tëll ñëw rek këdd bunt yi Bachir nges na allez dugg leen ñu dugg mu jiiti moom yoroon commanditaire bi bi mu ñëwee taxaw ne leen voilà le def leen def leen li ngeen sant mais ku yàlla nattu toroxal kenn mënu koo toroxal. Mhm. ma ne tëll génn xale yi daw génn la nga gars yi bi ñu ma gisee sax seen yaram dafa wàcc. gars yi ñan waaw dana feeñ ndax liñ présenté wu bi ñu ñëwee dañu ay policier lañ. Mhm. war nañoo jege fukk wala fukk ak benn te xam naa ne ñu si gën a tuuti dañ toll ni bombardier am na ñoo xam ne dañ sol seen loolu sax xaw ma nu mu tudd noonu. Mhm, waaw mu ngoog. Mhm. waaw may leen lan la ñu ne waaw jénnal may leen jénn ci nan mooy non parce que da ngay jénn Bachir a ngi taxaw di wax soxna si naan ko yow resteel mais kii day jénn wax gars yi ne def leen li ngeen sant. mais ba léegi mu ngi insisté ci soxna si moom na des. waaw na des xaw ma nag lu ñu bëgg mu des. mais yow nga génn waaw ma génn. bi ma génnee taxaw ñoom ñuy discuter di waxtaan ñu ne noonu nañ jénn buntu kër gi ñu génn taxaw ci buntu kër gi léegi ma ne leen fan ngeen ñu ne waa police lañ ñoo ñu feebar yebal may leen kon nañ dem commissariat bu dina ñu ànd yi dox ci làmbi joolaa bi boo jéenee rek war a dagg ci avenue Cheikh Anta mm-hmm. ki nga xam ne moo jiitu woon ñooñu mu àndal waxoon na mooy police. Mm-hmm. mu kobos ma ci loxo ne ma sëñ bi mu ne ah mu ne ma kilifa nga wax dëgg yàlla ak ni ma la fekkee. Mhm. duñ ay policier ñun fii lañ ne waxul nag fu mu fu mu mhm. waaye Bachir moo ne woon dafa am benn action bu muy régler mu am lum ñuy fay ñuy ñëw régler ko situation boobu mais biñ ñëwee dañ gis ne kilifa nga te ni ma déggee si biir wax ji affaire fami la ñu xaw a rocceeku. muy mhm. ay nervi ay mbër ñoom la ñoo xam ne yow koo si gis rek tiit. xale yi ba léegi ñu ngi nii daluñ dañuy toog ba mu yàgg rek mu ne bëri na bàyyi ñëw na ñu ngi nii ci saal bi toog ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko non mënumaa gëm loolu dafa am yoo xam ne enregistrement bi li ñu ànd ak ñoom ñëpp am na ko doon enregistré ñu ngi ko yor mhm. ak lañ doon wax duwul lu ñu inventé bu waxtu teg ko jotee rek ñu teg ko léegi après mu ne ñun non ñun fii lañ ne dafa am du ñoon réglé mais affaire famille la ñun dañ ciy génn waaye nañ négocier toog waxtaan ainsi de suite affaire yooyu mhm. bu ñu toogee wax ji xaw a yàgg kenn si ñoom sa xëcc ma ñu bokk toog ci suuf nii mu ni ma franchement Bachir Niass moo ñu fi indi mais lii mu ñuy defloo sax man bëgguma ko ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko yow ndaw nga am nga kàttan am nga doole bul nangu kenn du la utiliser di la fay alal pour ngay faat bakkani jàmbur bu la ko dara jaral. Mhm. parce que bu ëllëgee. Mhm. yaa nga fële kee ma ngi si climatiseur yi. Mhm. te 5000 francs la ñuy jox wala 10 yaramam daw. Mhm. affaire bi mel ne li commencé wàcc xam nga yàlla bu la naree suturaal. Mhm. mais ci noonu rek police quatrième bi ñoom it ñu ngi doon def benn euh, contrôle. Mhm. taxaw ci ci ci arrêt bi. bi mu ciyee rek ma mel lu fent rek daw jéggi rek dem ci ñoom. maa ngi leen ñeeri dañ ñëw attaqué sama kër mais dañ askanale woon seen bopp ci commissariat bu Médina mais finalement ñoom nee nañ bokkuñ ci ay mbër lañ ñu daal di ñëw taxaw bougé guñ. doomu doomu sëriñ bi Ahmed Khalifa Niass bi di Bachir mhm. mu ngi taxaw di expliquer ne noono ñii maa leen kii waa ji après léegi laaj ñu lan la mu commencé naan dafa saaga sama baay dafa def nangam ak nangam ma di ko jénne police bi sax daf ne ko yow sa baay Ahmed xalifa ñes même lii bu la ko waxee amoo droit def ko parce que deux heures du nga ne da ngay jénne nit ki ci këram jénne nit ci kër dafa am ay norme yoo xam ne noonu la war a amee mhm. léegi mu ne ma mu mu jokkoog xam naa kilifaam léegi ne ma comme affaire sécurité la léegi da soxna si mu ne nañ ko fi bàyyi may leen non duñ ko fi bàyyi mu ne kon dañuy seet foo xam ne am sécurité ñu mën leen faa yóbbu fekk sama famille ñoom it ñëw nañ bi ñëwee léegi ma may leen noonu man damay ànd ak ñoom dem ñu ànd ak ak police bi ak niir bi yaa ngi topp ba ci biir kër ga ñu jël quelques bagages benn mu ba ñu topp sama doom yi lañ fanaanoo moom lañ topp léegi loolu nag bi mu amee nag mhm. ci boppam Bachir jéenee xaalis bu bëri ci loxoom ñu avancé yi doon ci oto yi mu deen ko séddale parce que man dama ne woon ci instant boobu nervi yooyu kenn wurutoon a fanaan sa biir kër commanditaire bi kenn wurulool fanaan sa biir kër ñoom ñëpp commissariat la ñu waroon a fanaan ci laa door a gëm ne ndeke li ñuy wax ne nervi am na mhm. ay nit danañ leen ndax di leen jox xaalis am na dëgg la mhm. parce que dañoo ñëw jël ci sama bakkan faat ma sànq ma. Hmm. léegi ma bëgg ñu taxawaat tuuti ci ginnaaw. lan li ma laajoon ci yoto bi laay laajaat maanaam ko xam diggante taalibe ak sëriñ. Hmm. nga wax sa biir wax ba ne mu xaddamal na la. Hmm. Euh, mooy sa sëriñ. Euh, ak ni nga xam ne cofeel dox na seen diggante ba sa ngénte sax mooy tànn tur yi nga xam ne moom lay tudd. diggante boobu lan moo fa war a mën a dugg. ba tax euh, lu ni mel di xew. waa xam nga kër yi mag yëpp am problème ndagam kër yonent bi amoon problème kër yi mag yi am problème. dafa am nu ñu koy yaa ngi dégg mm-hmm. même Seydina Ndiaye bu fekkee dafa tooñ wala nangam ah, mais yoon am na mais diñ ko régler nerf yi ñëw bi ñëw yow bett na la wala bettul la non musuma koo foog ci àddina pour ñoom dañuy ñëw jël sama bakkan Fatma Ahmed Khalifa Niass maanaam amul coow lu ko jiitu woon amul Ahmed Khalifa Niass mm-hmm. coow amul am na am na lu luñ lu ñu lu ñu séq ñun ñaar mm-hmm. loolu bu ñu yeggee ci leeral ko danañ ko leeral waaw danañ ko leeral waaye jëmmi problème bi mooy oto bi moom moo doon débat du jour bi te moo doon liñ si li nga xam ne mooy police. Mhm. ma ne leen nag mbir mi fu mu ne ëpp nay loxo. Basir ak détermination bi nga wax. Hmm. Euh, dangeen ngeen mos am coow wala. non mais kooku daanaka samay moromu kii lañ ñu ñëw ma ak ñoom affaire liñ mën a ñoom affaire man li ma sama seen bàyyi indi may liggéey ci kër gi te jarul jarul laaj kër gi laajal àdduna bi rek wala nga jénne ay kàddoom rek teg. koo xam ne day wax ba ne yow li nga ma mënal di ma ko defal sama doomi bopp yi mënaluñ ma ko te dafa fës dama ko liggéeyal nag ba àddina bi yëpp tekki seen bët xam ko mhm. ku fekkee ne sa xol bi ki ñaanu da nga ko xam mhm. mais problème bi mooy fay faat googu ñu bëggoon a faat sama bakkan bëgg maa rey bëgg maa toroxal ci guddi gi mhm. ay néer bi nga xam ne ñoom ak ci digg centre bi def ko ba léegi ñiy daagu di gundaandaat dara xewul problème insécurité am na mais man li ci sama problème bi ma am man euh, en tant koo xam ne dafa toog di laaj bëgg xam. mooy lu waral ñu yegg foofu. waa dafa bëri. waaye nag xam naa nag bëgg jël sa bakkan. dafa dafa dafa bëri nag. Mhm. parce que moom bi mu ñëwee dafa wax na ci ndigalu baayam la ko te am na it benn euh, déclaration bu ma def mooy jamono. Mhm. yi dëkk bi xawee rëb ba ñu waxoon ne taal nañ ay parking am affaire yooyu. moom Ahmed moom Ahmed. Mhm. mu oo ma comme d'habitude buy déclarer dara mu ni ma defal ma benn déclaration buy wane ne loolu amul nga démentir ko. ne oto yi taaluñu ko. waa ne oto yi taaluñ ko. Mhm. boo paree nga yokk ci wax ji ne euh, lépp manipulation Ousmane sonk la nga xam ne nii naafiq la jihadiste la manipulateur la yooyu yëpp nga yokk ko si. moom Ahmed moo la wax pour nga wax. nga wax loolu ci sa ci sa déclaration. yow defuma ko ci. en tant que porte-parole damaa def audio bi noonu rek normal rek. wax ne loolu amul weddi information bi la lay waxuma ko ndeke loolu moom am na kiyam ci biir man lan laa jotee Ousmane Sonko ba di ko xas wala may xas lu la neenam doomu réew mi la am na ñu ko tànn bëgg ko gis lim indi nañ doxal loola waxul ko mais daf ko manifesté wu mu feeñ xam nga Ousmane Sonko day déranger. Mm-hmm. Eh, mais loolu ñoom seen problème la man man politique ma waaye nit ñi nag am nañ droit na ñoom la leen neex ñu topp ko ñoom it lañ topp nga bàyyi leen ko ak seen responsabilité nga bàyyi leen ko ñoom it aussi ak seen mais pas loolu boobu na bokk na ci li nga xam ne mooy mooy li gën a déranger pour ma dal ci Ousmane Sonko ci déclaration boobu du am tey du am ëllëg parce que doomi réew mi la. Mhm. ay ndaw topp ko am am si ñoom yaakaar. kooku du may damay damay sàmm ni ma nga xam ni laay sàmmoo sama pas-pas ni keneen amee choix beneen tarixa nekk ca nga respecté ko ci yoonu politique keneen bu amee beneen choix respecté ko. est que loolu rek la la mos ko ci kàddu. déedéet am na yeneen moo tax ma ne la ñu wax yëpp hmm, du ñu kër yi dafa am yoo xam ne nii bu fekkee lu ñu wax nga def ko rek bu soobee yàlla bu muy bu set geer hmm. ah, mais comme porte-parole la kay xanaa lu ñu la sant war nga ko mën a def. ah mais. xam nga dafa am wax ju waxu ak wax ju waxuwut mhm. xam lu xelu ak ak lu xeluwut mhm. bu fekkee lañ ne sant nga def ko waaw ah, kii bu ñëwee na la saagaal yàlla nag wala saagaal yoon bi mi ce que ko def wala mu ñëw na la defal loo xam ne dafay xotti xormaay charia wala dafay indi loo xam ne insécurité ci réew mi est-ce ko def déedéet dafa am loo xam ne ñun ñoo leen ciy dimbale loolu loolu mooy wax ji yi si biir nag <laughs> loolu yoon dana ko feeñal <laughs> te ci far yi di ñëw da ngeen am ay révélation yu doy waar yoo xam ne ni ku ko dégg danga nga dar si gémmiñ jëm ci docteur lépp rek lu ne lu ne mën naa feeñ mais bëgg naa euh, nga taxawal ma indil ma leeral ci oto yi ñu xam ne waxoon nañ ne taal nañu ko hmm. lu wér la walla non loolu amul non oto yi taal hmm, amul mu ngi ci kii bi audio yaa ngi ci kii bi mu ngi ci bi mu ngi ci kii lépp a ngi fi amul amul benn oto buñ taal loolu amul. ok euh, ku xam porte-parole xanaa dina doon koo xam ne peut-être dina conseil ki nga xam ne moom la yor kàddum ci façon bi muy waxee façon bi muy waxee des fois da ngeen ciy da da ngeen ciy def discussion yéen ñaar walla. waaw mais loolu affaire boppam la comme bu waree def discours ma loolu moom affaire boppam la comme li ñuy li ñuy taxoon a jóg mu nekk di jàmbat. Mhm. sama bakkan bi ñu waroon a jël démb ak sama njaboot waroon leen a rey yàlla rëccal ñu ñuy xaar nag justice. Mhm. def wàllam parce que peut-être ay néew ji doole lañ amuñ kàttan amuñ fu ñu jooyee amuñ avocat amuñ dara. Mm. tey mu toroxal ñu jël kër gi ñu ngi ko tëj suñu yére sax benn yëre moom laa indi démb ba tey sama doom yaa ngi nii sànq laa leen nañ xool ci fëgg jaay ni niñ ci mën a sole loolu nga toroxal ko nit. Mm-hmm. oto bi nga xam ne nii moom la yoroon. Mm-hmm. ñu jël ko. Mm-hmm. fi mu ne mënu ma laa wax mënu ma laa wax fu ne. mooy mooy xaaral ma déstabiliser la toroxal la ba nga ne tot waaye ku yàlla toroxal du ko plainte. waaw li ci kanam moom ñëpp danañ ci xam incha allah. parce que loo xam ne action boo xam ne. Mhm. police tombé na si. moom liggéey am na liggéey boo xam ne moom dana ko mottali ñun lii suñu devoir ñun danañ ko def incha allah. ok ñu ngi lay sant di la gërëm bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi sant euh, di gërëm di wax nit ñi daal ne leen mhm. réew mi war nañoo gën a góor góorgóorlu sécurité am bu fekkee dañ toog ba ay doomi kilifa xam sañ-sañu jël ay nervi am sañ-sañu dugg ci kër ay deux heures trois heures di saaga bëgg a jël sa bakkan ba yàlla rëccal la ñu toog ba heure bii réew mi dara yëngatuwut yaa am problème na si ñëpp veillé bàyyi xel xam ne dëkk bi fu mu ne lu bari wóorut loolu lay wax nit ñi te kenn ku ci nekk bàyyi xel boo déggee kër kër sa biir kër moroom ndax démb mënoon nañoo rey de coow li ci mbedd mi bari na trop yàlla ñu rëccal nag <laughs> waaye Seydina Aliou njaay Ahmed Khalifa Niass li ci kanam lépp danañ ko xam wax ji bu ëlbatikoo rek galan baa ngi ñëwaat. wax ji bu ëlbatikoo. galan baa ngi baa ngi ñëwaat dañoo nuyoo te fayeguñu bu ñu fayee àdduna bi yëpp danañ xam ne fay nañu. mais ay menaces lay dégg wala comme ça. non non non du ay menaces maanaam loolu denc la ay secret yoo denc la. wala déedéet du loolu du loolu mais xam nga nit bu ñu demee ba nar a sa bakkan. Mhm. am na lu ko lal te loolu yëpp day feeñ. surtout nga def ko sa presque sa buntu kër bàyyi am sañ-sañ boobu taxaw jénnee paquetu xaar yi di ko séddale peut-être xaar dañuy wax ne ñun doomi baadoolo lañu bokkuñu loolu day jeex ci réew mi waaw day jeex moom ci réew mi ndax wax dëgg yàlla nag même kilifa yi nga ci réew mi jàmm lañ bëgg ak sécurité réew mi mm-hmm. bëgguñu leen di dugal ci ay fitna wala ku leen di waxal ay fitna mm-hmm. yal nañu yàlla jàppaleel boppam incha allah li ci kanam lépp da ko am da ngeen ko xam jërëjëf ñu ngi gërëm nag waa Sunugal 24 mm-hmm. ci seen liggéey ak seen xereñteef mm-hmm. na yàlla taxawoo leen yokk leen bi xurmati saydi wu jóot jërëjëf ok merci beaucoup mu ngi noonu euh, entretien boole boog itam waxtaan boobee la ñu seexoon ak moom naa Alioune Ndiaye doon ki nga xamante ni moo di porte parole docteur Ahmed Khalifa Niass ci fantasiro gi nga xamante ni dox na ci seen diggante mujj doon indi ay leeral lépp lépp mënagul a leer ndax mu ngi ci loxo yoon en tout dañu topp li nga xam ne moo di xibaar bi waxtu wu nekk li ci jaadu ngir ngeen jot ci yéen suñu yoon tax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 gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax